asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu nuyu nañ leen ziar leen ndokkeel leen euh, Waarwi TV ñu ngi ci euh, ndog yi maam Cheikh Ibrahima Fall Lam Fall Baay mu dina ñu ngi ko defee ko suñ Cheikh jëmm euh, defee ko ko suñ Mor Talla defee ko tamit ko suñ Ablaye Fall Ndar ak buntu kër yi maam Cheikh Ibrahima Fall yëpp muy doom yi tey nag ñu ngi ci kër sët yi muy kër sëriñ Bada Fall moom sëriñ Talla Yacine Fall ñu ngi nii ci kër allah ñu ngi ziare mboolem ñi nga xam ñooy taalibe yi Eh, xarit yi eh, soppe yi wóolale yi ñoom ñëpp ñu ngi leen ziaru baax a baax di leen dokkeel di leen ñaanal jàmm ak tawfeex ñaan bu baax nag sëriñ Mountakha Mbacké xalifa général des mourides suñ borom yàggal ko fi loolu ànd ak wér waaye noonu leen koy ñaanalee Serigne Cheikh Jimbu faal mi nga xam ne moo fi toogal maam Cheikh Ibrahima Fall te mate ko sëkk ñu ngi koy jaar bu baax di ko ndokkeel ndokkeel baax a baax mbokki suñ mbokki baay Fall yëpp tam ni ma leen ko waxee sànq rek ñu ngi fii si kër Serigne euh, Bada mu Serigne Talla Yacine Fall ci sëttu maam Cheikh Ibrahima Fall lamp Babil Mouridina tey nag la war a jébbale ndog yi nga xam ne la koy jébbal Euh, ki nga xam mooy sëriñam mooy waajuram muy sëriñ Abdou Rokhaya Fall mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Motal Fall xam naa ci kanam tuuti sëñ Sana ñi ngi ànd ak sëñ Sana ci wàllu caméra bi ci kanam tuuti euh, dina gis yenn témoignage yi nga xam ne moom lañ war a def ci ki nga xam ne euh, moo waral lii tey muy sëriñ Talla mu sëñ Talla Yacine euh, mu ngi fii nag ci biir këram ki nga xam moo ko fi toog muy sëñ Bada mu sëñ Talla Yacine ñu ngi ko ziar di ko ndokkeel euh, di ko ñaanal yàgg wér kon sëñ Sana si kanam tuuti dinañ am yenn témoignage yoo xam ne dinañ euh, nga xam ne mooy sëñ Talla Yacine ba mu yegg si fii ci sëñ Bada mu sëñ Talla Yacine ziar ndokkeel a ñooy rakki sëñ Bada mu sëñ Talla Yacine waaye nag bu ñu soxna Maa Awa soxna Lalla waaye day day làmb mboolem ñi nga xam ne eh, ñi ci rakki eh, sëñ bi war a magi sëñ bi eh, topp sëñ bu baax a baax kon sëñ Sana ci kanam tuuti dinañ am yenn témoignage ak li nga xam mooy ziar bi nga xam ne sëñ Bada mu sëñ Talla Yacine Fall moo nar a ziar waajuram sëñ Abdou Rokhaya xalifa Cheikh moo Talla Fall ci kanam tuuti sëñ Sana jërë ngeen jëfati site internet Waarwi TV eh, biir réew ak bitim réew tam ni nga koy defee eh, ci ndogi maam Cheikh Baye Fall tey ji ñu ngi fii ci eh, kër sëñ Talla Yacine fekk si ab xalifaam sëñ Badamu sëñ Talla Yacine di ko ñaanal mu yàgg fi lu ànd ak waaye bi ñëwee tamit fekk suñu waajur sëñ Baye Maam Ndiaye bokk ci waa kër Cheikh Abdou Lamine sëriñ Xaadim mu sëriñ ak sëñ Basak ak ñoom sëñ euh, ñoom ñëpp ñu ngi leen ziar baax a baax di leen ndokkeel euh, ak suñ Fallou tamit euh, ziar suñ Baara Cheikh ñoom tamit ñu ngi koy ziar di ko ndokkeel ak soxna Ndiaye Fall ak soxna ma Awa Fall mu suñ Modou Aminta kon sëñ Bas yaa ngi ànd ak Waarwi TV fii ci kër sëñ Talla Yacine xalifa bi mu sëñ Bada Talla Yacine. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki mbokki taalibe ñu ngi leen nuyu baat leen ziare. di leen baal waaq bu baax te di leen balaaq jiital ci nuyu bi ak siyaar bi sëriñ Mountakha Mbacké Bachir di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak di ko loolu te ànd ak wér di nuyu bu baax ak siyaar maam Cheikh Ibrahima sëriñ Aline ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd di siyaar bu baax suñu wéyjur wi dendal sëriñ maam Ndiaye Baara di ko ñaanal sa borom yàggal ko fi lool yàggal ab taxawaayam barke maam Cheikh Ibrahima di siyaara bu baax mboolem mbokk yi nga xamante ne ñoo teewee bis bi nga xamante ne ci la sëriñ bi di jébbale ab liggéeyam di jiital ci nuyoo bu ak siyaar bi sëriñ Abdou Khadim Fall mi nga xamante ne mooy kilifa ci jataay bi ak sëriñ Baara Ndiaye mi nga xamante ne moom it bokk na ci kër gi tayit seq ak sëriñ bi lu bare bare ñu koy nuyu bu baax te di ko siyaar bu baax soxna maam mbay ñu koy nuyu bu baax ak soxna maawa ak yi nga xamante ni rek teewee nañ bis bi di nuyu bu baax nag ak a siyaare yi nga xamante ni ñoom la sëriñ bi àndal liggéey bi jiital ku mel ni sëriñ Fallou ak sëriñ Abdou Aziz ak sëriñ Modou Abdoulaye sëriñ bi ngi leen nuyu bu baax tey di amaan mbégte bu baax ci taxawaay bi nga xamante ni moom lañ taxaw ci liggéey bi nga xamante ni moom lay liggéeyal maam ju baax ja te amul lenn lu dul moom tey amul lu ko gën a kawe te mu am ci yéene lool tey ñoom ñu ëpp ko ci yéene sëriñ baa ngi am mbégte bu baax a baax tey di leen ñaanal ci kàttanu sëriñ Tuubaa Cheikh Ibra mboolem loo nañ ko ci yàlla na ko sëriñ bi nangu te làq ko fi yaakaagut te yéen a am ci jëf ji yàlla na leen sëriñ borom jox kàttan guñ ko mën di jëfe ci barkeb sëriñ Tuubaa Cheikh Ibra baa ngi sant bu baax a baaxit it mbokki taalib yi nga xamante ni ñoom la àndal liggéey bi nga xam loo xamante ni mën na ko rek ñoom ñoo tax moom ñoom ñoo tax mu mën loola kon sëriñ baa ngi sant mbokki taalib bi bu baax tey di leen gën a soññaat bu baax a baax rek ñu gën a bàyyiwaat xel liggéey bi te xam ne liggéey bi moom la am amul lu ko gën a kawe ndax ab Baay Faal moom amul lu du ndigal te ndigal li nga xamante ni mooy li ëpp doole mooy yi nga xamante ni Cheikh Ibra dak fee bàyyi woon nga xam sëriñ bi sosu ko ginnaawam tey daa fekk ñu doon ko jëf ba fi mu toll nii kon mbokki taalibe yi sëriñ bi mi ngi leen di fàttali liggéey boobu ñu gën cee góorgóorluwaat bu baax a baax euh, lépp loo xamante ni am nañ ko nañ xam ne sëriñ bee ñu ko jox ñu delloowaat ko ci sëriñ bi bu ñu yaafus benn yoon ci liggéey bi nañ ci gën a góorgóorluwaat bu baax a baax te xam ne amuñ lu dul digal te ndigal yi dara ëpp ko ci doole ndax mboolem loo xam ne suñ borom santaane ko nag mën nañ dañ koo teg ci suuf ànd ak Cheikh Ibrahima Fall te Cheikh Ibrahima Fall lii rek la jàppoon te lii rek la am nañ jël jëf ji def ko muy suñ lépp buñ am dara buñ bëgg dara nañ bëgg nañ bëgg mbégtam sëriñ bi rek te mbégtam sëriñ bi mooy suñu tawfeex kon sëriñ baa ngi fàttali mbokk taalibe bi ñu gën a góorgóorlu bu baax a baax gën a fonkaat liggéey bi tey gën cee bàyyi xel bu baax a baax ngi gën a sant it waaye juróom yi nga xamante ni moo nekk ci wetam di ko dooleel bis bu set muy sëñ maam nga xamante ni lépp loo xamante ni yëkkati na ko bu sañoon mu am ci ndam kon sëriñ baa koy sant bu baax tey di ko ñaanal bu baax di ñaanal it way juróom yi nga moo fi nekk moom it suñ borom dogal mu féeti mbur soxna Lalla sëriñ baa ngi bu baax di ko ñaanal suñ borom yàggal ko fi mu yàgg ci kanamu njaboot gi ak mboolem njaboot nga xamante ni ñoom la fi nekkal ci bàyyi ko sëñ Tuubaa Seex Ibra di sant mbokki taalibe yi ak wóllëre yi yëpp rek sëriñ baa ngi sant bu baax tey am mbégte bu baax a baax sëñ Taala Yaasin kenn la ci njabootuk maam Cheikh Ibrahima di doomi Serigne Bassirou Fall Awa Jaxate moom maam Cheikh Ibrahima Fall ñu tuddee ko sëñ Mortala mu tàmbali woon ci moom ab liggéey mu àggale ko sëñ Aline Fall mboor ba mu sambal kër mu nekkoon fi mu doon koo xamante ni nag jàmbaar la woon joo xamante ni mboolem ñi mu bokkaloon Cheikh Ibrahima Fall ku nekk bàyyi woon na ko xel te ku nekk xamoon na yéenam ci kër sëñ ci kër Cheikh Ibrahima Fall ak ak mbaaxam tamit foo ko takk weesu nag ndax mboolem ñoo xam ne jamono na ñoom koo ci wax mbaraw mu xam la rek boo ko tuddee sëñ Talla Yacine benn baat boobu rek la ciy teg ak a baax kon sëriñ Talla Yacine moom loolu rek lañ mën a wax ci moom kenn la woon ci njabootu Cheikh Ibra Fall gi waaye mboolem ku mu bokkaloon Cheikh Ibra bàyyi woon ko xel tey liggéey bi nga xamante ni moom la jëwrinam ji di defit ku ci amul yéene la teyit ku ko fonkoon loolu la mboolem loo xamante ni jëfoon na ko ci rek doyu ko kon jëwrinam ji nga xam ne moo fi nekkit tànk yooyu rek lay doxee mboolem lu way juram wa tàmbali woon da koo fas yéene àggale tey da xamante ni ku ko fekk di nga xam ne jàmbaar ndax bi ko fi waajuram di bàyyi xëy na lii muy def munu ko woon ndax booba daa am ci lu mu tolloon waaye boobaa léegi it ku ñëw fekk ko fi di nga xam ne jàmbaar la kon moom it dañ koy ñaanal bu baax rek tànk yi nga xamante ni ci la aw daal yàlla na ko Cheikh Ibra Fall gàttandu ba loo xamante ni naal na ko mu àggale ko ci barkeb Sëñ Tuubaa Cheikh Ibra non non nuyu bokki taalibe bi yëpp di leen siyaare te di leen balaax rek ak dëggal wax ji sëriñ Basiiru mi wax ndax sëriñ bi nga xam ne moo fi taxawu taxawaayu sëriñ Mor Talla taxawaayam moom ñëpp rafetlu nañ ko ndax kilifa am nga baax la mu fi bàyyi woon fam ko bàyyi woon fi mu ko yóbbu tey jii am xel daju ko woon tey ci waxtu yi mu toll ndax boo gisee naan am xel daju ko moo di dafa toll ci buntu adduna ay naaw ñu baree baree bari di yëngu ci wàllu àdduna moom nag nu gis lu mu am rek yut sëriñ bi loolu nag moo tax ñu ne fii mu yegg ci wàllu jëm ci sëriñ bi sunu xel dajul woon ne dana fa yegg waaye nag day am koo xam ne ku ko wuutu doo mën a def dara lu dul nii rek lay war a def ndax lii sëriñ Bachir wax de fekk nañ fii ci kër gi dara loo xam ne bisub tabaski la ñu yóbbu ay tabaski benn xar képp des ci kër gi sëñ Abdou nga xam ne la joxoon boppam mu daan ànd moom ab liggéey soxna Mbàkke mi fi nekk yàlla dogal xar mi sëñ bi yeewoon nga xam ne moom la waroon tabaski dara dikku fi mu jox ko soxna Mbàkke biñ dee siwaat ci wàllu tekkusaan ñuy waxtaan mu xamal ko ne ko man de bàyyi tabaski naa ba noppi ndax xar mi ma li ma amoon jox naa ko sëriñ bi mi fi jox naa ko soxna astu bi sëñ bi dee siwaat ci kër gi fekk fi mel xar képp da ko yiw jëm yët ko sëriñ bi fii ñu toog ci at bi am na góor a saar mi fi la ko fekk nu toog di waxtaan man ak maam ak ma ak sëñ maam góor faal ak ku ñu wax sëñ daam jóob fekk nañ jataay boobee keroog bi ñu wax moom xamal ko ne ko nun day faal euh, tabaski ba noppi ak ku ñu wax sëñ Cheikh Wade Ndiaye mu sëñ Cheikh ne ko ah, sëñ bi noo def mu ne man tabaski naa ba noppi ndax li ma amoon jox naa ko sëriñ bi waaye sëñ Abdou maa waxoon ne moom am xaram da ko jox sono su Mbakke may tabaski sëñ bi jéeg nag waruma ma tax li ma am jox naa ko bu bu nu xëyee buñ gisee ku nu sarax ndawal nu jël buñ gisee ku nu ko jaay nu jënd buñ ko amul lu nu yàlla wërsëgal nu jàpp ci loola kon loolu mooy dëggal wax ji nga xam ne moom la sëriñ bi wax mos a denc dara mos am genn bëgg lu bëggu sëriñ bi rek la ma ci bëgg kon nag duñ man lu di leen sant ak di leen ñaan yàlla taxawaay yàlla na ko suñu borom yàlla gën a dëgëral doole ci barke barke Cheikh Ibra Fall yéen bokki taalibe yii nga xam ne da ngeen a ànd ak sëriñ laa leen daan wax rek laa leen di wax ndax kat bare waa na ko am kilifa am ca loola ca naqari te mënoo muy tey sa mënoo tey muy sa kilifa waaye yéen ñi dafa mel ni bu fekkee xam ngeen dara war ngeen a damu ndax li tax ngeen a damu mooy am ngeen kilifa mat sëkk kilifa te ñi nga xam ne ñoom la nawloon teel di ay nawle yeen faa jaar kenn ruusul ne kii mooy sama kilifa ci ab yaram ay tegginam jox kilifa am ab cër loolu lan xam ci moom ak nangoo liggéey ak di wéy ci ndigalu sëriñ bi rek leen diir bi mu doon ne ndaw ba fii mu toll day mosuñu ko fekk ci dara loo xam ne dañ ko naan lii waroo ci woon a nekk te lii may wax bu du woon dëgg moom mi moom a njëkk a xam ne du dëgg ndax ni soo koy seeral loo xam ne nekkute moom moo ni njëkk xam ne li nga wax nekkute moom waaye lu du jar ak i teggin xamuñu ko ci moom kon nag Fall ñu ngi sant bu baax di la ñaan nga yàgg ak sa rakk yu baax yii nga bu demee nii mu demee kon yàlla na sa gën a taxawu te gën laa suuturaan gën a suuturaan njaboot gi ba say yéene ci sëriñ bi ak sa bëgg yàlla ko yàlla jàppandal yéene taali ci yow ak yéene sa yéene ci taali bi ko saa borom yàlla defal lépp muy tawfeex ndax barab bii day sunu barab ki fi nekkoon di sunu kilifa di sunu lépp kon taxaay bii nga fi taxaw boo meloon weneen melakaanu mel wii nga wuute mii nga kon dañ ci am loolu métti waaye duñ ci mën dara waaye ndokk nag bi ñu sunu borom suturaalee ba la nga xam ne moom la fi sa waajur bàyyi woon nga tegu ca yoonawee te yóbbu ko xam ne ñun ñëpp xam nañu fii sa waajur aggu fi woon waaye yàlla na jëm kanam rek ndax nit itam boo taxawee ci ay wakkam te suutoo ko day mel ne kon nag ndokk bi yàlla dogale nga lii ngay def nga ko def rek yal na yàlla gërëm jëf ji yal na ko yàlla barkeel yal na yàgg lool nag taan di ko wér ci barke Cheikh Ibrahima Fall sa mm, taalibi boobu di sa mbokk sa sa lépp nag muy sëñ Baara moo tam na ko ñaan yàlla bu ndax gis nañ ni moom waxtu wu kër gi ak sa jëmm ji ak njaboot gi moo këram gi képp moom la yemale ak jëmm bi boppam rek nit nag bu la defee nam def boppam wàccoon ak yow ndax nit amul lu ko gënal kon yàlla sa yàggal te boole ci ak wér ci barke Cheikh Ibrahima